moom comme euh, kii euh, auditeurs yi dañuy posé question muy tontu wax nga dëgg oustaz comme yow ci kër gi nga bokk. professeur Camara est-ce que il est en ligne Aliou. ah pas encore donc ndeeguñ ko kay kon oustaz ñu bala nga nuyu mbokk yi rek et nga wax sa xalaat ci jàngoro ji yow ngir xeex gi nangu nga euh, moytu gi jëm ci dajaloo yi ak mbooloo yeeg yooyu. waaw jërëjëf El Hadj Assane ngi lay nuyu di nuyu El Hadj di nuyu oustaz. Aliou Sall Aliou Sall moom mu bàyyi ko Eh, maa ngi doon déglu docteur Daouda Ndiaye sama xarit la moom itam maa koy jaar ah, di nuyu ñi di di di nuyu ñiy déglu rajo bi yëpp. jërëjëf. Eh, waaw léegi comme ni ni ko ni ko ni ngeen ko waxee àdduna bi waxee ko. Hmm. Eh, yonent bi nee na sama xeet du ñu dajaloo ci ak réer. Hmm. bi du ñu dajaloo ci ak hmm. lépp lu ñu dajaloo ba jullit ñi ànd ci rek yonent bi nee na loolu lu baax lay doon. te arrêté jàkk xanaa du Sénégal rek la booy ba boo xoolee monde islam yëpp. vraiment mhm. daje mbooloo yi. Mhm. nañ ko te loolu dafa logique dafa logique xam nga bu yónnent bi ne nit ku feebar warul jaxasoo ak ku wér. Mhm. jàkke yi nag am na ci lu ma ci xaw a jaaxal tuuti yaa Assane Gueye. démb dama dem di julli ji tusubaar ci benn jàkka fekk ñu tëj ko. ma yaakaar ne julli yi juróom. nga xam ne jàkka yi boo demee ay juróomi nit. waaw benn benn gi la waaw nit ne mais loolu moom defe naa ne war nañ koy mën a bay te bàyyi jumaa jullit mbooloo lañ wax. mbooloo mi waaw mbooloo mi mbooloo mi jullit jamaa wala lu mel ni. bu ko defee yeneen julli yi ñu jël mesure yi ñu mesure hygiène yi ñu wax. Hmm. kilifa fay dem bàyyi ko seen kër. ñu noddu ñu ñëw julli parce que nag. dëgg la hmm, hmm, la. def ne sama kër yi sama jàkkee yi nañ ci tudd yàlla. yi ba benn jàkk kenn nekkatu fa di tudd ma yaakaar ne ju mbooloo yi. ci quartier yi ak julli juróom très bien. mais yooyu nañ ko bàyyi nañu julli yi. waaw xam naa nañ ci bàyyi xel waaw loolu am na solo. mais déet loolu moo gën parce que. bu ñu dañuy jàkkee yëpp te jàkkee yëpp de dëgg la dëgg la danger bu rëy lay indi. ba yaakaar na itam loolu am na euh, euh, maanaam pour fegu rek. ci mm-hmm. jàngoro ji. Mm-hmm. tax na julli mbooloo yi te nag du jàkkee yi rek. o ah, très bien waxoon naa démb ne mboolem fu nit ñi dajaloo di fa di fa nekk mbooloo. Mm-hmm. nañ ko wàññi parce que xamuñ ci